asalaamaaleykum gars yi maa ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm Sen Sport 221 the best sport news channel Kalidou Koulibaly l'international sénégalais dellusiwaat na ci batu Real Madrid ki nga xamante ne mooy Carlo Ancelotti di entraîneur bu Real dafa dal di xamal ñi di waa Real ngir ñu def effort ngir war a mën ki nga xamante ne mooy Kalidou Koulibaly gannaaw bi nga xamee ne Raphaël Varane ak Sergio Ramos yëpp dem nañu jamono yi nag Real Madrid ñoom seen bët yëpp ñu ngi ko tegoon ci ki nga xamante ne mooy Kylian Mbappé kii di xibaar bi sax mu ngi xam ne ne Real Madrid parewul ngir waxaale benn joueur jamono yi fekk amuñu lu leer ci ki nga xamante ne mooy Kylian Mbappé ndax xaalis bi nga xamante ne daal dinañu koy takk teg kii di Mbappé lay xaar bu fekkante ne daal am nañu lu leer ci ne duñu mën a signé ki nga xamante ne mooy Kylian Mbappé kon amaana Real Madrid dina dal di li nga xamante ne mooy benn défenseur ngir war ko mën a renforcer seen li nga xamante seen secteur défensif bi waye nak kayiti xibaar bi daal dina xam ne jamono ki di nga xamante ne Carlo Ancelotti mom dafa dal di soxla Kalidou Koulibaly loolu war na ba xamal na ñiri waral ñu def ay effort ngir war ko mën a indi foofule jamono yi nag Kalidou Koulibaly mom du tollu ci 60 millions d'euros ñi di waa Napoli ñu koy xaar ki nga xamanteni nak wala ñii di waa Paris Saint-Germain defoon nañu offre bu 40 millions d'euros ñu rejeté won leen kon nak ñii di waa Real Madrid lu mu néew néew dinañu def lu upp 40 millions d'euros bu fekkente ne bëgg nañu jot ci ki di Kalidou Koulibaly ak lu mën a xew Carlo Ancelotti moom bëgg na Kalidou Koulibaly avant mercato bi di tëj te Real Madrid jamono yi seen bët yëpp ñu ngi ko teg ci ki nga xamante ne mooy Kylian Mbappé weer bii nag di août bi lépp dina leer ndax kat ki nga xamante ni mooy Kylian Mbappé mois de août la ko Real doon xaare ñi nga xamante ni Paris Saint-Germain jamono ñoom itam toujours ñu ngi yaakaar ne kii di Kylian Mbappé dina ceeñ maayinam ngir war a mën a prolonger ak lu mën a xew ci dossier boobule Real Madrid moom parewul ngir signé benn défenseur wala benn joueur fekk amuñu lu leer ci Kylian Mbappé buñ sukkandikoo ci kayiti xibaar yi ba tey ci transfert ki nga xamante ne mooy musa Konaté moom nag jamono yi kii di xibaar daal dina xam ne ne moom ñu ngi koy séentu fële ca Turquie ndax kat club Turquie yi ñu ngi koy xëccoo moom kii di Moussa Konaté moom nag mu nekk joueur boo xamante ni seetlu nañu ne ñaari at yi moom dafa nekk joueur boo xamante ni daal ay mbiram doxul bu baax gannaaw bi mu jógee li nga xamante ne mooy Suisse moom musa Konaté ay jamono nekkoon na foofu la ca Suisse entre 2014 ba 2017 moom Moussa Konaté mu ngi doon joué ci club bi nga xamante ne mooy FC Sion moom sax mu daal dafay dugal toll ci 50 buts ak 21 passes décisives ci 116 matchs yi nga xamante ne na ko fa mu nekkoon joueur bu am solo moom kii di Moussa Konaté jamono yi nag ñu seetlu ne depuis mu ñëw France nag ay mbiram doxul bu baax ndax bi mu ñëwee signé ci club bi nga xamante ne mooy Amiens moom ñii di waa Amiens dañoo dal ci li nga xamante mooy Ligue 2 bi muy mooy Dijon ko dal di woon signé ni ki waaye daal nit ki buñ ñu seetloo ndax saison bi yëpp moom joué na lu toll ci 28 match waaye bi képp la daal di marqué moom kii di Moussa Konaté jamono yi nag seetlu nañu ne ànd ak loolu yëpp nga xamante ni mbiram doxul bu baax foofu la ci France ñetti club ca Turquie jamono yi bëgg nañu ko bokk ci Antalya Sport Rize Sport ak Göztepe ñetti club yi yëpp bëgg nañu ki nga xamante ni mooy kii di Moussa Konaté. ki nga xamante ni nag mooy Cheikh Niass franco-sénégalais la moom daal dina gagné trophée bu njëkk ak club bu formateur am bii moom Cheikh Niass mii bu fàttale ko ni daaw Lille dañu ko able woon fële nga xamante ni mooy Panathinaikos dellu si waat na joué na nag ci match bi nga xamante ne doxoon na diggante Lille ak Paris muy trophée des champions wala super ak ni ñu ko mën a xamee ki nga xamante ni mooy Cheikh Niass dal dina joué ay minutes nga xamante ni mooy trophée bu njëkk ak club boobule bu ngeen fàttale ko comme ni ma leen ko waxee ni ki daaw mu ngi woon foofu la ca Panathinaikos loolu waral na ba euh, teewuloon li nga xamante ne mooy féete gi nga xamante ne lii ñu ngi doon féete gannaaw bi ñu gagné li nga xamante ne mooy Ligue 1 bi waaye trophée des champions bi doxoon diggante Lille ak Paris Saint-Germain Lille moo daal di dóor Paris Saint-Germain benn bal ci dara Idrissa Gana Gueye moom joué woon ci match boobu waaye Abdou Diallo moom titulaire la woon bu sukkandikoo ci kayiti xibaar Idrissa Gana Gueye li ñu wax ne moo ko tere euh, jouer ci match bi ñi ne nañu malade la ñeneen ñi ne dafa daal dañ ko testé positif ci li nga xamante ne mooy corona ak lu mën a xew moom dal dina wuute li nga xamante ne mooy match boobu waroon dox wala boog doxoon diggante Paris Saint-Germain ak ñi di waa ki nga xamante ne mooy Edouard Mendy ak Chelsea Football Club ñu ngi waajal match bi nga xamante ne war nañu ko am seen diggante ak Villarreal ñu koy tuddee Super Coupe d'Europe mu war a xew nag la 11 la 11 août bii la war a xew mooy àllarba ji di ñëw bu dellu see ci lañu jël joué li nga xamanteni moy super coupe d'Europe bobu lay buñ ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar nak lu toll ci fukki junne nit ak ñett moy 13000 spectateurs moy fukki junne seetaankat ak ñett ño wara mëna tew ci li nga xamanteni moy match bobu lay kon ñi nga xamanteni ñu di Chelsea football club ak Villarreal ñoo ko war a comme ni leen ko waxee àllarba di di ji di ñëw moy mercredi bu déllu sé nek la 11. li nga xamanteni moy la 11 août ci lañu jël joué li nga xamanteni moy super coupe d'Europe bobu la wara dox digënté Chelsea football club ak ñi di wa Villarreal. Dani Alves nekk ancien joueur FC Barcelone moom dafa dal di jënd benn club fële ca Brésil buñ sukkandikoo ci kayiti xibaar yi club bi nag mu ngi nekk ci quatrième division bu Brésil Dani Alves daf ko daal di jënd ba noppi daal di changé bi tuddee ko Barcelone. bu ngeen fàttale ko moom ancien Barcelone def na fay at yu bari moom Dani Alves jamono yi sax mu ngi footballé foofu la ca Brésil dal dina jënd benn club ci quatrième division bi changé a nekk catalan ndax moom dal di changé tour bi tuddee ko Barcelone kon moom Barcelone moo dal di dee ci xol bi moom nag mu nekk joueur boo xamante ni nag ku am ay li ku gañe trophée yu bari la ndax moo ëpp lu mu gañe ci ay trophée ci joueurs yi nga xamante ne ñu ngi football ci jamono yi moo xam Lionel Messi la wala Cristiano Ronaldo ak ku mu mënti doon Dani Alves moo la ëpp lu mu gañe ci ay trophée ci ay trophée te nag jeexagul ndax mu ngi joué ba fii ñuy waxee bàyyagul football à 38 ans la am jamono yi te mu ngi euh, nekk ci li nga xamante ne mooy olympique bi nga xamante ne mu ngi daw jamono yi fële ca Japon maanaam jeux olympique yi daw fële Dani Alves mooy ki jiite équipe bu Brésil bi moo nekk seen capitaine bi mooy jiital Brésil jamono yi sax ñu qualifié ci li nga xamante ni mooy demi-finale yi foofu la ca Japon ci li nga xamante ne mooy jeux olympiques yooyu la kon amaana mu gañuwaat beneen trophée mu nekk 43 ci ay trophée dane Alves jamono yi ak Brésil qualifié nañ ci demi-finale yi ndax war nañu jouer niki suba sax seen diggante ak Mexico muy diggante Brésil ak Mexique lay doon mooy doon benn demi-finale bi ci Jeux olympiques yi foofu la ci Japon beneen demi-finale bi nag war a dox diggante Japon ci boppam ak ñi di waa Espagne Japon bu Takefusa Kubo moo war a jouer contre Espagne mooy doon beneen demi-finale bi kon loolu mooy affiche li nga xamante ne mooy demi-finale Jeux olympiques yi war a dox foofu la yuy xew fa li nga xamante ne mooy ca Japon comme ni ñu leen ko waxee Dani Alves gagné na 43 42 trophées té bu gagné li nga xamanté moy Jeux olympiques yi lé dina am lu toll ci 43 ci ay trophées yi nga xamanté dal dina koy gagné ci carrière am ki nga xamanté moy mooy Andriy Shevchenko mom nak dafa dal di bay équipe nationale bu Ukraine gannaaw bi contrat am jeexee ak équipe lé gannaaw bi mu fa défé nak juróomi at bu gën fatalé ko euro bi ñu wésu rek mom mo leen indi won yobuna leen ba ci li nga xamanté ni sax moy quart de finalu euro boobu nga xamanteni wessu weesu nañu ko moom adrestevchenko kay di xibaari xam la nañu ne jamono yi contram ak équipe nationale bu ukraine jeex na juróomi at la fa daldi def ak résultat yu am solo mom nak mu nekkoon ancien capitaine bu équipe nationale bu ukraine nekkoon joueur bu ñu ràññee rawatina ci histoire AC Milan jamono yi nag dal dinay bàyyi équipe nationale boobule gannaaw bi nga xamanteni ni def na fa juróomi at bi contram jeexee ak équipe boobu di ukraine ki nga xamanteni ne mooy Jojo Chiellini moom daal dinay extend contrat maanaam prolongé na ak Juventus yeneen ñaari at fii ba 2023 moom ki nga xamante ne mooy Jojo Chiellini këyit xibaar daal dinañ xam ne ne moom nag contrat dafa jeexoon tàkk ak ñi di waa Juventus ñu jàppoon ne sax amaana dina bàyyi club boobu di Juventus waaye nag yokkaat na ñaari at ci contrat te jàpp nañu ne lii dina nekk loo xamante lu am solo ci moom lay doon ak équipe nationale bu Italie ndax kat moom kii di Giorgio Chiellini mi ngi séntu ne dina représenté Italie ci li nga xamante ne mooy coupe du yi ñu dëkk mal mu war a xew ni ki déwén yoon jaay ko jamono ki nga xamante ne mooy Carlo Ancelotti moom boolewul ki nga xamante ne mooy Eden Hazard ci plan am ndax Ancelotti kat bu ñu sukkandikoo ci kayit yi xibaar yi moom 23 joueurs la dal di soxla maanaam équipe bi li muy rëy rëy 23 joueurs képp la ci soxla te ki nga xamante ne mooy Eden Hazard bokkul ci joueurs yooyu nga xamante ne moom boole na leen ci plan am loolu war na ba Real Madrid jamono yi dinañu def ay pexe ngir tàqale ko ak ki nga xamante mooy Eden Hazard dal di koy jaay ki nga xamante ne mooy Thilo nekk défenseur bu ñii di waa Paris Saint-Germain moom nag nekk koo xamante ne jamono yi Bayer ko bëgg Bayer Leverkusen nag bu ngeen fàttale ko ay jamono rek wala ay fan ci ginnaaw ci la ñu dal di signé ki nga xamante ne mooy Michel Bakker jëlee ko foofu la ca Paris Saint-Germain ki nga xamante ne mooy Thilo Kehrer dal di koy yóbbu ne mooy ci Allemagne Thilo Kehrer nag nekk joueur boo xamante ne bu ñu seetloo ci jamono yi ñu weesu moom daal temps de jeu ak Paris Saint-Germain dafa wàññeeku loolu loolu waroon ba jàpp nañu ne amaana dina génn foofule Bayer Leverkusen nag jamono ñoo ko bëgg signé yóbbu ko foofule ci Allemagne